salaamaaleykum mbokk yi ak xarit yi encore une fois di leen baax baax leen wax yegg si leen ak jàmm si seen site Setsima TV leen wax ne saa su ne ngeen ko bëggee noonu lañ koy xel defee yéen ñu leen di jaajëfal aussi ci euh, teewlu bi ngeen ñuy teewlu saa su nekk di xool suñu chronique yi dañ ko faral di defee ak yéen euh, les chroniques du jour tey nag euh, dañuy dugg fi nga xamante ni moom moo di ci wàllum rap ku ne xam ne ne Sénégal rap bi yëngu na ku ne xam ne ne Sénégal clashante bi rap bi clashante yi bëri na macha allah mais nag loolu noonu yëpp nag lu ko waral dañuy njëkkee si euh, ñaar yi nga xamante ni bii ñoom ñooy clashante mooy si diggante Dip ak ki nga xam ne mooy Ngaaka Blindé Dip ak Ngaaka Blindé boo xoolee ñoom ñaar seen histoire ci rap du tey lañ commencé clashante yàgg nañoo clashante parce que boo xoolee am na fi événement boo xamante ni bii euh, ki ko organisé woon mooy DJ Mef euh, mi nga xamante moo nekk fële ci Sénégal FM moo fi organisé woon benn événement fële ci Douta Seck boolee Dip ak ki nga xamante ni moom moo di Ngaaka Blindé ñoom ñaar ci kaw seen ku nekk di freestyle di clash sa morom comprendre kon clash dafa bokk ci rab tey mun naa ne rab bu dee garab euh, clashante moom mooy nekk racine la ndax loolu noonu ci rap la bokk voilà. tey ku ne xam ne ne dib euh, ci ñi njëkk a classe Ngaaka Blindé ci la bokk ndax boo xoolee am na si benn son boo xam ne ne bii mi ngi naan Ngaaka yi amul baag ñoo yàgg si teen bi Ngaaka yi amul baag ñooy yàgg si teen bi kon kooku noonu Ngaaka Blindé lay adressé foofu noonu quoi. acca bi ngeen demee ci bés ni ko tey am na ci son boo xam ne dip aussi mi ngi wax ak Ngaaka Blindé mi ngi wax ak moom mi ngi ko naan. time is money wax borom montre cher yi. wala tekkatu di li nekk ci jeel wi foofu tamit dip gis nañ ne mi ngi tontu mbaa Ngaaka Blindé waaye Ngaaka Blindé moom tamit am na fu mu ñëwee waxaat ak moom ne ko oh, time is money montre taxul booy muusal donc time is money boobu noonu dip wax ci la ko reprendre ne ko time is money montre taxul fuy muusal donc clashante boobu noonu euh, fii lañ ko fekk voilà ñoom ñooñu sax bëgg nañ ko fayal mais coow li ci boppam parce que boo xoolee le 14 octobre 2016 euh, ci euh, ci show of bi euh, boo xoolee Ngaaka Blindé ak Dip ñoom ñaari yéeg nañ ba Ngaaka Blindé bis ni ki tey jeexal naa coow li ak Dip bis ni ki tey jeexal naa coow li ak Dip mais seulement rab dafa nekk loo xamante ne bi boo ko ci dinee rek rab day dee boo ko ci dinee rab Galsen day dee xoolal Gaston ñaata yoon la fi clash Karim Xurum Xax xurum xaax clash ko fi xam nga rab bi jóg affaire bi neex ñeneen ak ñeneen clashante bi nit dof xool ko moom ak Canabasse nu mu fi demee woon loolu mooy tax rab am buzz loolu mooy tax rab am solo loolu mooy tax rab di dund ci mim réew mais tey bu fekkente ne ku nekk da ngay taxaw di bind ay amour di bind ay lii cependant rab dood rappeurs yi il ñu muus tey xoolal actuellement rab bi ni mu jógee xoolal actuellement rab bi tey ñëpp ngi naan rab rab rab c'est parce que kon ñoom war nañoo xam ne rab bi dafa am koy doxal muy clashante clashante bi nag buñ ko waxee du question que ne da ngeen di saagante wala kii di xuloo kii wala bu ngeen yéegee ci kaw concert rayante déedéet loolu yéen seen bopp yéen a moom rab yéen seen bopp yéen a xam naka ngeen doxalee rab parce que kat xoolal mbalax maani kat gis nga leen de chaque jour nga gis koo xamante ne bii day dem ba day fay mais day créer benn buzz créer benn buzz boo xamante ne bii après xam nga coow lu jóg mu amaat fi tur yéen rappeurs yi noonu ngeen war a def ku si nekk xam nga xam nga yow sa bopp ni nga war a demee ku si nekk xam nga yàgg sa morom ni ngeen war a demee xam nga ngeen waxtaan seen biir ngeen clashante xam nga bu bu xuloo am bu xeex am mais ngeen clashante loolu mooy indi buzz loolu mooy indi buzz làmb ji la moo tax mu neex tey. mbër day gis mbër dëkku ko xam nga tamponné ko wax ak moom dëkk yeeg lii xam nga indi lii loolu noonu mais bu ñu gisee ñoom ñaar foo xam ne du làmb am fa dañuy saafonte xam nga kii bu xewlee kii seeti ko loolu mooy buzz rappeurs yi actuellement loolu la ñu war a def tey boo gisee clashante bii nii diggante Dip ak ngaaka bële ne ci ñoom laa ñëw ñi si des dinaa ñëw ci ñoom bon nekk na loo xamante ne tey yóbbuwaat na rab fu garaaw yóbbuwaat na rab fu am solo actuellement tey ñëpp ngi naan rab ñëpp ngi naan rab mais tamit am na loo xamante ne war na ci bàyyi xel muy ci wàllum euh, religion ndax da nga gis tey koo xam ne day rab clash dip dip xam nga wax lu ñaaw wala mun a dip njaago la wala mun a dip lii la kee ñëw clash kii kii jullit la kii chrétien la non non nañ bàyyi loolu rap rap la na ku nekk rap li nga mën a rap na ku nekk classe am moroom mais affaire religion ñu bañ ko see dugal parce que bon on sait jamais on sait jamais tey Ngaaka Blindé mën na mën na classe tey benn dip wax ko ci njaago njaago yi gis seen bopp njaago yi mën nañoo classe tey kii wax ko ci séeréer yi gis seen bopp donc nañu bàyyi euh, loo xamante ni bii tey peut-être mën naa indi leneen donc na ku nekk classe am moroom rab bi am buzz xam nga bon ngeen kaf ree xam ne yéen bokk ndey baay Sénégal benn bopp la kenn mënu koo xam ñaar lenn rek moo metti nag lenn kese moo metti ci rab bi actuellement mooy ndelu jàmbur bi ngeen jàpp ko tudd ay waay bàyyi leen ndelu bi bàyyi leen ndelu abaa bi billaay bu ngeen xamoon ndelu abaa boobu doo ko tudd ah jàpp ndelu jàmbur bi ku nekk di classe naan ndelu abaa ndelu abaa ndelu man li ma rek lenn rek la mooy da ngeen ko catu ba daal bi sax karaw rek di ngeen ko catu ba leel bi sax karaw bàyyi leen jàmbur xanaa xamu leen ne awaa li muy def nii affaire yu neex yi muy def nii yëpp xanaa moo ne ci ci ci ci bopp bi la nekk ci ndelam boobu la nekk de dimbal leen na ngir yàlla mi ñuy béggal saa su nekk bu leen ko catu di ko catu di ko catu ba ndel ba sax karaw ah di leen jaajëfalaat bu baax a baax